asalaamaaleykum àdduna bi yëpp maa leen di siyaar bu baax a baax oustaz Ahmed Diop Fall mbëkk moo leen di nuyu borom yàlla kese gi barki bi yomal xaamal ak kabar waaye nag tey damaa kontaan sama xol daa sedd guy ci maram kayre lii mu defal Malick Ndiaye barki bi yomal xaamal ak kabar xoolal matériel bi mu yëkkati jox ko ko lu ne di kontaan nañ si yow bu baax a baax. na la yàlla gën a taxaw yow bu nu amoon ñu mel ni yow ñu melaan ni yow ñu melaan ni yow barki bi yomal xaamal ak kabar xale yi dañuy gën a kontaan dañuy gën a liggéey ku teral xale rek yàlla dina la teral barki bi yomal xaamal ak kabar àdduna nii la nit boo tanee nit da nga koy dimbali te yàlla tax te xale bi doon na wax naan ku ma dimbali Malick doon na wax ma jël yàlla dogal na dimbali ni la barke bi yomal xiyama la kam jàppale nga ko te xale bi ku bëgg réewam la ku nangoo liggéey la ku nangoo sonn la jàmbaar la yàlla na leen yàlla defal jàmm maram kay rek kontaan naa bu baax a baax yàlla na la yàlla teral yàlla na la yàlla taxaw yàlla na la yàlla dooleel wamaa bay nu kum ci yow nu xurujukum guppoo gupp gupp faada gupp la gupp lëfër lëfër adduna nii la Sénégal borom doole yi nanu jàppale nanu nga xam ne ñoo néew doole yal na yàlla def jàmm wasalaam